salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax baax di leen ziar di leen joxaa seen wàccuwaay bu wër a wër su ngeen gisee ñu taxaw nii nag mooy arène national arène nationale mooy këru mbër yi këru mbër yi lañ am kër ak journaliste yi ak waa CNG am kër tey petit wooñu fi di boole fi ñaari xale ñaari ndaanaan kii sama nday joor barki démb boo njaay la fi jóge digganteem ak Aliou Fat Fat Ramdan Signor mu nekk sama càmmoñ moom tamit ma xool kan laa njëkk jox mu nuyoo non bu mooy mag non bu mooy mag bu mooy ma jox bu neen ma jox la Ramdan nuyu naa la fay naa la naka tey sant bu baax alhamdulilah baa da nga nuyoo maa ngi lay fay bu baax waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli si yoonante bis maa ngi sant sama ñaari waajur waaw di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu sama adversaire bu ah maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama grand bi ma àndal waaw di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn daal di nuyu bi ah. waaw di nuyu sama mbokki séeréer yëpp maa leen di nuyu waaw. kon waa Sandaga nag duma leen fàtte waaw képp kuy naan yokkal ma jaay rek maa lay nuyu bàyyi ma kenn waa di nuyu mënu ance ñëpp di nuyu ñëpp ah di nuyu waa di nuyu waa Ahlu Làmb waaw maa ngi nuyu ñëpp ma kenn daal ba ma limee damay jum gaay di nga ñëw bu wala nga nuyu waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi di sant sama ñaari waajur di sant waa Géejawaay bu baax di sant monde entier daal waaw di bëggee képp kuy bëggee bu Siteu rek waaw di jégalu suma ay fan sa nag si luñ jógee bi paase xam waaw toogoon nañ ne bàyyoon nañ làmb mais sam booy nekk si kaso bi ñoo ma woo ne ma mbër bul ñu yàpp xam nga kon loolu la wax la daal waaw mais looloo tax daal ñu ñëwaat xam ne xam nga waaw lu ñu naan yoonu ndaw xam nga yoonu ndaw du gaaw daal. waaw di jégalu sama ay bu baax a baax a baax. bu jugee fi barki Demba Ndiaye mu ñëwaat fi jël adv avance. waaw ñu jëlaat avance te parce que mooy sama métier. waaw ku si nekk boo xëyee sa métier bi ngay def man làmb mooy sama métier. waaw te dama war a bëre daal. bu xam ne Ramadane bi mu jël. waaw kii mooy loolu kii xam naa ko seetaan naa ay combat am loolu mais làmb la. lamb waaw waaw. lamb daal mooy suma métier quoi te kii moom dawul sama yaram quoi pour man waaw amaana nag si li ma jugee moo waral sax xam naa moo loolu. mais yàlla yàlla ñu yàlla yóbbu daal ba ñu yegg si bis ba. Ramdan dégg nga li mu wax. waaw naa ko bu baax nee na yow dawoo man dugg naa ci école damay dugaat nii. da ngaa duggoon. waaw ci moom laa njëkk foofu laa njëkk amee victoire. John Sina laa fa daanoon géej waay boobu. nga ñëwaat dugg fa. waa duggaat fa te dama nar a amaat fa ndam incha allah. bu gën a mel fanaan mer la de. non loolu garaawul loolu mën naa ko seere nee na dawul yaram dawuma yaram loolu la wax. waaw buñ ci yegg dina xam ne am na combat mu ngi soog a am combat nag. am nga combat ku xam bu xam ne bu dee. loolu wedduwuma ko champion la. waaw def waaw champion la. waaw aussi sama garaa la nag encore. Hmm. waaw mais loolu dawul sama yaram quoi comme nu mu wax rek. dawul sa yaram déedéet. bu dee nga ni wax. non kii day wax rek kii waxut tàppar lay wax rek. Eh? waaw kii maanaam si li ma jugee sax moo waral sax mu ñeme moo nii yab ma nii taxaw di wax mu daje nañ arène nationale moo xam na lu ma koy wax bu baax a baax. waaw di nuyu tamit sëñ Fallou combat bi combat sëñ Fallou Mara la waaw combat sëñ Fallou Mara borom jàmm gan waaw di bëggee képp ku may la di wax ne combat bi waa diaspora bi ñoom Tony Ndiago xam nga ñoom Momar gars yi nekk France xam nga Espagne Amérique di bëggee sama gaa yëpp di bëggee suma mag. waaw nag Ramdan Junior bi. wallaahi mooy la kii kii dawul yaramam sax wallaahi kii déggalu ma la sama combat bi passé xama rek ñëpp na ma taxawal téye sa bopp te buusi doo koo xam-xam ne day dem. te combat bi passé gis nga gars yi ñëpp day addu ñëpp na ma bu teeyal teeyal teel sa bopp te man xaw ma tee sam bopp looloo waral sax booy bi yem ma mais nañ nañ may baar ak may dem quoi man mbër buy dem laa wallaahi sama combat bi taxaw liñ ma teeloo sax moo waral sax moo loolu mais barke Serigne Touba Mbacke mais kii dawul sama yaram <laughs> nee na liñ ko téelee boobu moo tax nga yàpp ko kii daa baax rek kii ku dul moom dinaa ko daan eh. kii taxumaa jóg daa bokk ci sama yoon nii rek bilaa wala kii dama koy fel jàll xam na Bou Siteu baax Bou Siteu xam naa ko bu baax kii xam naa ko bu baax kii ba ma teree damay nelew kii bon naa mën naa ñàkk entraîné sax mën ngaa nelaw waaye say mbokk duñ nelaw mën naa nelaw ba combat bi jot ma ñëw defar ko bagage yow mën ngaa nelaw waaye say mbokk am Bou Siteu ku ko jël avance xam say mbokk kii kii maag moom la maag moom la kii gis nga hmm. kii ba at bi soufflé hmm. wallaay ba arrière boo dégalee boppam du yàgg billaay wallaay doo am une minute kii ay moromam taxaw naa ak ñoom ñu wax lu mel nii ki bisu combat barke Serigne Touba dina gisaat beneen Bou Siteu bu bokkul ak bii ngay gis nii sax te parce que. xam nga rek kon bii taxaw nii nii musuwaat yow. maanaam lii day soog a taxaw rek mu gis ma nii xam nga ay science ak si li ma jógee moo tax mu ñeme ma mais kii bisu combat am naa ko duma dumay métti eh. daan la. kii wax kii ñëpp bi may ñëw dañu naan daje nga ak bu mën a wax boo demee wax rek la fay nekk wax la moo tax waaw waaw soxla ma si wax ju bëri de combat bi dama ñëw pour am lu ma war a wane xam nga yi ma am lu ma leen yoreel war leen ko fay yow tapet nga doo dërëm. sa kanam am na de. non moo loolu baar de. bi moom jarul ay wax ju bëri. nga ne nga ne dinaa gis beneen dinaa gis beneen Bou Siteu loolu nga wax. buñ ci eggee dëggalal sa bop dama bëgg nga taxaw dëggalal sa bopp barki Seydina bisu combat bi boo boo taxawee boo dëggalee sa bop ma door la nga daanu. bu ko ne bu dëggalee boppam. yow boo waxee ma dëgg bu ne boo dëggalee boppam door nga daanu. waaw loolu laa bëgg mu ne ma dëgg sama bopp. moom na dëggal boppam wallahi du ma arrière dem si ginnaaw. Serigne Touba Mbacké sama combat yi passé liñ li liñ li ma gars yi wax li li ma gars yi taxawloo moo tax sax kii yam ma laa la wax mais combat bi bii nii di ñëw wallahi du du ma taxaw ak yow. bu albi ne pim maa ngi tàq naa sa kaw naa la dóor dóori métti. yow wax nga mo ne li ngay wax ak li ngay jëf bokkut boobu bés baa di nga xam ne yow daan nga dajal barke Seydina Muhammad amul lu may ragal amul lu may tiit ay wax nii loolu xoolal affaire bi ci géew ba la waaw ñu jëflante nga ne ma dëggal sama bopp yow dëggalal sa bopp ñu jëflante. xaaral mu ñëw xaaral mu ñëw Petit Kaay. dóor dóor yi métti di ngeen xeex defal ndànk rek. bu defal ndànk rek bu taxawal. yow Petit Petit yaa fi yaa fi dajale ñii kii nan day kii nan day duma ki dajale. waaw ginnaaw ban sante sant suñu ñaanal sant suñu sëriñ Abdou Karim Mbacke baax xam di nuyu Sénégal gëpp di yi xamul la sant suñu mbokk waa Bambey waa Ngoy Aliou Sylla waa ñëpp xamul la ñun tey ay xel la ñu ngi si yoon di liggéey xamul la li ñu ñor mooy ñu yokku lamb war ñu wàññi lamb mais petit ah. petit combat bii nii bu bëri bëri ki de moo ñaay

rek tey ak yeneen combat yoo xam ñu ngi koy waaj pour bégal amateur yi yeneen combat yoo xam ñu ngi koy waaj ci ambiance ak ci def-jëf ci liggéey boo xam ne lépp rek pour bégal amateur pour amateur yi kontaan lan lan nekk di def ginnaaw loolu ñooy sànni ñoom Abdoulaye Sare France Fallou Fall Touba Galzo 94 Aziz Kolobane Ba tarki Tarkinda baa Jili borom baa Jili Sanché Kolobane xam nga di nuyu sama copain Fallou Ndiaye di waajal le 8 janvier tamit di ci woo amateur yëpp le 8 janvier bu ñëwee ci làmb ji ñu xam ne làmb am na amaat na borom hmm. di ci sargal Sénégal yëpp di ci sargal jigéen ñi waaw di ci woo ñëpp daal di xam ne ñooy waaj bu baax bés bi le mois de mai dina indi ay combat gën a neex combat yi sax ay combat jànq la nga indi lépp ay combat jànq lay doon lépp ay combat coow doon te bu ñu ñëwee amateur di nuyu sama doom day Mor Sandaga xam nga di nuyu ñëpp ñëpp daal ñi nga xam ñoo may béggee xam di nuyu Medina pour la gi ma ne di nuyu ñëpp di nuyu sunu bet sunu bet tamit di boo xam ne tey ñëw na ci bésu sunu bet doomu réew moo ko moom ba pare jëlaat xaalisam def ko ci làmb kon loolu sant yàlla la quoi di nuyu sama maman la borom Tampico xam di nuyu ñëpp ñi nga xam ñoo jàpp Petit Production maa ngi woo ci bés bi daal xam ne lamb ju mag la du lamb ju ndaw doon ci woo sponsor yëpp pour ñëw jàpp dugal seen loxo pour mbër gën a gis seen bopp mm-hmm. Mm-hmm. a waxtaan xam nga parce am na bés yoo xam ne bu ci jëm dëgalee du bés yu ak dayo indi Bou ak Ramdaan mi loolu rek doy na lamb ak yeneen espoir nekk suuf li war a ñëw leen mooy gën a neex li ne ñëw te li ñëw li leen xam mais li war a ñëw mooy daax incha allah hmm. di nuyu sama staff petit yëpp xam nga leen nuyu den béy leen ah, moo hmm. la ñu waxtaan bëgg ñëpp kontaan si ñëpp rek. Ah. Hmm. Ah, ma xam ñu naan kan laa jàmm tàggoo ma leen yeggale quoi kan laa jàmm tàggoo kan mooy tàggoo waaw loo looy yóbbante bu ci tamit taxaw ak looy tàggoo. bu sete na xam ne man xele laa damaa nekk si yoon waaw incha allah dama koy fer rek jaal kii moom taxumaa jóg daa bokk ci sama yoon rek waaw maa ngi woo ñëpp waaw bàyyi ma kenn waaw di mafia bi ah mafia déggoo Sandaga maa ngi woo ñëpp di woo waa Médina ah, di woo sama mbokki séeréer yi Fiisal maa ngi woo ñëpp Bawol bayuma kenn di woo sama mbokki séeréer yi ah, maa ngi koy waxaat ah maa ngi woo mbokk sama mbokki séeréer ñu jàpp bu baax a baax nga xam ne am naa ko ma bursité waxkat bi laa am nag gars yi ngeen xam loolu bu baax a baax waa di woo ñëpp di woo sama garaa yi di woo Modou Fall euh, kii Petersen ah di sama sama garaa Saliou Gadiaga maa ngi woo kooku sama garaa bu baax la maa ngi woo ñëpp bayu kenn di woo sa waa mairie bi fii la Omar Tine maa ngi lay woo ci combat bi nga jàpp ci bloc yi nag dama la koy teel a wax waaw nga jàpp ci bu baax a baax di woo ñëpp waaw di nuyu sama garaa Mor Thiaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax sama garaa la waaw di nuyu ñëpp di nuyu sama garaa Manga Manga waaw maa ngi nuyu ñëpp waaw bàyyi ma kenn di nuyu sama mbokki séeréer yi. waaw bàyyi ma kenn waaw ba ma limee damay jum doo loo ko yóbbante ba kii lu ma koy yóbbante rek di ko wax na waaj la na toog ay tànkam waaj te mu xam moom moom moom maanaam moom la lijjanti moom lu muy indi. te bisu combat man man lijjanti tamit li may indi. te kii nii wallaahi du ma taxaw mu dinaa ko dinaa ko dóor dóori met naa dal ci kawam. combat bi passé li ma gars yi ne teel sa bopp looloo tax sax moom mu yem ma mais xamal sama combat ma yow combat bi soxla ma ku may teeloo sama bopp nañ ma bàyyi ma dem ko léegi bu wootee. waaw di woote rek ku si mel ni suma papa la Diop. sama combat passé ñëpp gis nañ li ma may yëkkate un million may ma ko jàppale ma ko Tony Ndiago noonu xam nga ku si mel ni Basirou Ka borom terrain yi nekk fee Tivaouane Peulh di fa def lu baax Basirou Ka grande sociale maa ngi koy woo ci combat ba di si woo ñoom Gallo waa Tivaouane Peulh autorité yi maa ngi woo ñoom ñëpp ñoom xam nga xam nga maanaam ku lim daal da ngay juum mais maa ngi woo waa diaspora bi ku si mel ni ñoom Momar Tony Ndiago Ouma Faye moo Thiam Séeri Ajara ñoom ñëpp maa ngi leen di gis naa sama combat pass seetaanoo ma daal waaw déggoo la jom may na ma ay millions rek ngeen téye seen loxo gis naa ñu ma taxaw sama combat sama combat pass mu si xaw a wéet daal te parce am na ñoo xam ne ñoo dégg la jom may na ma million rek ñu yaakaar ne million moo la te millions yi si semaine boobu la jeex million du dërëm du xaalis waaw ñi may waa maa ngi sant daal ñi ma soutenir sama combat bi passé combat bi nag di wax ne combat sëñ Fallou Mara nekk jàmm gan combat bi sa bis la xam nga di si woo autorité yi saa Touba jàppal ni combat bi sa combat la xam nga Zal Oni di woo Tine ñoom ñëpp dina wax ne combat bi seen combat la daal jara xam nga ñoom karo ñoom ñëpp combat bi seen bis la di wax ne booy bi nag du ma taxaw ak moom wax ji moo bëri si li ma jugee sax moo tax sax mu ñeme ma sax bay taxaw di wax ak man mais kii ni waa diaspora bi sax xam nañu kii du ma moromam. Ah, boobu ñeme na la de. waaw non mun na ma ñeme nii si si si li ma jugee moo tax mu ñeme ma. mais kii daa duggoon seen écurie kii wallaahi bu arbitre ne pii daa ko dóor dóori métti combat bi kii lu tax mu yem ma lu tax ñu téeloo ma sama bop man loola ma métti sama combat bi pourquoi gars yi di ma di loo man xaw ma taxaw man ku ma xam-xam ne bu sita bu arbitre ne pii tàq naa sa kaw xam nga di woo gars yi daal nañ di wax nañ ma soutenir moo cam seera ajara maa lay woo ci combat bu baax Tony Ndiago aw ma sa fay wallaahi la job di di woo autorité Tivaouane Peulh yi aw ma seen fay di leen woo si combat bi ma jàppale ma di wax ne nag képp kuy dooleel Bou Siteu maa lay woo ci combat bu baax a baax a baax surtout maa waa diaspora bi sama waa koy sam booy yi aw ma seen fay. ñëpp daal waaw booy yi démb xam nga amul lu ñu ma waxul. waaw amul lu ma waxul mais yooyu yëpp garaawul. lii lu ma war a ñëw confirmer la sama diggante ak yi ma jàpp ko teg ko lu mer kii tapet la. kii du dërëm di woo waa Sandaga baa ku ci mel ni ñoom yaa xam nga ñoom naar nekk Sandaga moor maa lay woo ci combat bi. di wax ne moor moom suma moor la léegi da xaar doo dërëm tàppen nga. joxante leen loxo yi ñaar. waaw may ma tuuti ma maa ngi woo maa ngi woo Bas Beye ah maa ngi woo Moussa Fallou maa woo ñëpp waaw. di woo Cheikh Sène maa ngi woo ñëpp bayuma kenn ngeen jàpp ci combat bu baax a baax a baax kii kii waxkat la wax la am si combat bi lu mu war a wax ak lu mu war a woote na ko wax instant yi ndax foofu ndax xoolal bisu combat la lay teg lu bisu combat dama lay teg lu dama lay tóor dama lay tuuma dama lay daan si li ma jógee moo tax nga yem ma yow si li ma jógee moo tax nga yem ma man ki may ragal ku dul yow sax dama koo ñeme laa la wax man man kuy takk nga ma lay ragal amul ci làmb man ñi ma bëreel ñëpp nii la ñuy def dañuy wax rek maa jóg wallaahi dama lay duma eh, daan dama lay dóor yow dama lay fel jaan duma dóor yu loolu ay wax na rek fii la yem rek mais gis nga bu ñu duggee ci géew bi moo tax nga yem ma xoolal bëgg nga tee sa bopp nag dama bëgg nga ñëw ñu daje naa la teg lu boo ñëwee ma teg lu waaw di woo Zal Oni Zal Oni di ko sant bu woo ko ci combat bi ndax yow doo doo koo war a ak koo war a waxal naa wax la woo ko kii deful dara si lamb man bi ma sama douzième combat kii ñaata defet xam naa ko bu baax tapet la li mal sa defet yi ci bii loolu